أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى خاتم الأولياء سيدنا وشيخنا مولانا أحمد بن محمد التجاني وعن سائر خلفائه الدكتور حافظ عهدنا وودنا الإمام عبد اللطيف بكدوري والوفد المرافق لمعاليكم الأعزاء والمقدمين المحترمين أيها الحضور الكريم إنها للحظات ممتعة ومنعشة تفعم النفوس maraxan wa xubura wa taraban wa surura wa naxnu naudu maa xadaratikum ila ixtitaami al ayaam althaqafiyat almuxassasa li abi al abbas mawlana alsharif alfatimi ahmad bni mohammad tijaani ذاك الذي نال ما لم يح به بشر من العطايا ولم يعرف بمقياسه غوث البرايا أبو العباس أحمد من معناه أعظم أن يجلى بقرقاسه فندعو بالمناسبة إلى المضي قدما على المسيرة الدعوية الناجحة التي تمثلت في نشر مبادئ الطريقة التجانية عن طريق التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد li rabti xayaati alaxbaabi bi siirati uswati alxalq sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi xaysu yarqa sulukuhum wa yusbixa misaalan yuxtaza bihi fi tarjamatin القيم الإسلامية عمليا وتجسيد مضامن الشريعة والحقيقة تجسيدا حيا وفي الختام نكرر عظيم شكرنا وفائق تقديرنا وعظيم امتناننا بجهود صاحب الجلاله محمد السادس في ترسيخ دعائم التصوف الإسلامي فجزاه الله خيرا كما نتقدم بخالص الشكر إلى فخامة رئيس مكي سلم وإلى حكومته ونشكر مجددا xulafaa al marakis tijaani fi Sénégal wa shukruna mawsulun li a'daa il hay'ati tantiqiya li kaafati dawaa'ir tijaaniya wa li kulli man ta'aawana ma'ahaa fi najaahi haadihi al ayyaam al mubaaraka min qariibin aw min ba'iidin wa ilaa an nalqaakum bi mashii'ati llaah fi l aam al muqbil fa lakum min al xalifati Cheikh Ahmed Tidiane Sy ajmalu taxiyaati wa axlasu daawaatin wa axarru tashakuraatin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dana gàtt lool ci wolof wolofal bi yéen mbokk yi toog ñu leen di nuyu ñu ngi leen di yeesalaat suñu ziar ci yéen di yeesali cant di nuyu ki nga xam ne moo di mudiru diwaani wazir al awqaf wa shu'un islamiyya bil mamlakati al maghribiya al imam Abdoul Latif al Bagdouri ñu ngi koy nuyu suñu mbokk mu baax la suñu wëllëre la suñu xarit la te booba sax demagul ci diiwaanu diiwaanu buuru Maroc booba imaam la ca zawiya arabi ibnu saaye jiite na ma fa ba tey ma topp ci gannaawam julli di mbokk mu baax bëgg tariqa bi di muqaddam tarbiye bi ñu recevoir ñun ñëpp moom la recevoir door a nekk tey lii mu nekk nekk na muqaddam nekk imaam door a nekk wasiru diwaani wasir al awqaaf bu nu amee tey lii ci Maroc mën nañu wax li ci ëpp yàlla ak moom la ku añaanul ni yàlla ak diin ñuy li ñu di ko lim ñu di ko nuyu di ko yóbbante nuyoo ci buuru Maroc te duñu dañ di ko ñaanal yàlla defal ko li mu bëgg ci nguur googu nga xam ni mi ngi ko doon ci ay maamam ak i mamaatam ñu nu itam suñu mbokk mu baax mi doon def conférence bi jëkk bi al imam Cheikh Ahmed Tidiane Diallo di doomu alxaaji Umar Diallo suñu nijaay tabaarakallaahu tey bi way juróom demee moo ko wutu ci ilimaan googee ca jumaa Ndar te xam ngeen ni fu nekk neex naa jiitee bu mu des Ndar ay doomu soxna rek ñoo fa nekk ak ay buur ak ay buur boo jiitee ñu ngi laa contrôlé eh, maa ngi laa dégg ah waaye sàngam eh, ni nga ko jàngee seetaat ko <laughs> eh, tey wala nekk imam fa tabarakallahu nii nii suñu sang bi toog di chérif maam yi Haydara parce que loolu Seydi Hadji Malick moo ko bind te lu mu bind dëgg la ne fu ñu nekk fekk surtout yonent bi mooy suñu kilifa mooy suñu sang te lu nekk ci suñu poos nañ ko ñuqi jox ko ba ba ñu teqali moom loolu la ñu du digal ci li mu bind kon suñu kilifa la ñu ngi koy nuyu di ko sant ci nangu bi mu nangu ñëw def euh, lii ñu ko santoon ni mu ko waxee la ajjuma ji jot ba ka ñaareel Tiwaawan lay jullee moo mbokkam mu baax mi jumaa ja miin nañ leen waa jumaa ja miin nañ leen ñu ni itam di Cheikh di Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu ni itam suñu sëriñ bi toog Seydi Macky Tall jóge ci Cheikh Omar Fouti te Cheikh Omar Fouti ku jóge ci moom rek foo nu fekk yaanu moom di nuyu sëy di arabi ñas ak mbokk mu baax mi doon def tarjama gi di bokkar ñan ak mbooloo mi ñu àndal jóge ca xalifa ba ca Kawlax di Cheikh Ahmed Tidiane Niass E, kër Baay Ñas suñu kër la ñaari yoon suñu kër la ci tariqa bi ndax sama baay Seydi El Hadji dafa yónni Seydi Ahmed Sy e, Kaolack <coughs> waaye ba muy dem mu ah, soo demee nag na nga jaay ko ne bala ngaa def dara na jëkk a jaar ca sa kër bàyyi booba fa nekk alxaaji abdullahi ñas nga nuyu ko sidi ahmed si dem def li ko maw doox nuyu maam alxaaji abdullah jotul ko nuyoo Seydil Hadji Malick génn dem tuuti mu dellu siwaat nuyu ko toog waxtaan ak moom tuuti génn ko génn demaat maam alxaaji Abdoulaye tàggoog moom mu demati dellu si nuyuwaat ko moom ah, alaaji ni ko waaw Sidi ndax dafa am loo ma bëgg rus loo ma bëgg a wax rus ko sa dem beeg sa ñëw bi bari na lool lool dafa am loo ma bëgg wax rus ko mun ñu ah, déedéet sa buntu kër gi bu ma ñëwee rek fekk yonent beeg Cheikh tax moo tax may dem di dellu si su ma bàyyi nee ba muy dem Kawlax Seydi Hadji Maalik ni ko ah soo demee nag bala ngaa def dara bala ngaa jaari fenn ko nga jaari sa kër bàyyi Alxaaji Abdullah nga nuyu mu ñëw nuyu ko ziar toog maam Alxaaji Abdullah li mu ko laaj noo def ak salaatu tasbiix waaw waaw man ko ko di jëfee waaye man dama natt tasbixaat yi mu wuuteeg bu at mi ma tëral ko ba ñu dëppoo te woon naa ko Seydil Hadji Malick mën ma sa bos bi gën a mat mun ko na nga def ak fatiha bi niyatil ismi sëñ Babacar wax ko la mu ca xam mu ne xay baabu mii kat di ñeexum ñebbe loolu <laughs> la moom Alaaji Abdoulaye wax ne xay baabu mii kat di ñeexum ñebbe <laughs> alxaaji Malick am taalibeem bu ñuy wax alxaaji Abdou Kan ñu ko boole nag ak alxaaji Abdoulahi Niass mi ngi ñëw Koolax na nga ko taxawu alaaji Abdu Ka la taxawu kër ga ba mu sotti mu ñëw buddi lalu xànjar ba mu daan tëdd yóbbu poseel ko alxaaji Abdoulaye Niass ñu ko waa lii nag njabootam mu ni ah alaaji Malick Gueye sama sëriñ te mu ma dénk kii kon lu ma doon màggale alaaji Malick moom laa koy màggale boobu may gis alaaji Malick fekk moom alaaji Abdu Kan dafa bind seen xaaji Malik ni ko wutal naa la fi junni banti màngi damay wut nag wagon bu ma ko def te amaguma ko mais su ma ko amee rek danaa la ko indi boole naa ci itam deux mille cinq cent boobu deux mille cinq cent alal la suma bàyyi nee na Seydil Xaaji Abdou Kan dafa am at sët si Ahmed Tidiane jóge aynu mardi ñëw Sénégal fekk Sénégal woo kon di atu crise ni Maodo ni ko ah Babacar suñu gan gii de Alaaji Abdu rek lañ koy jox mu ganale ko demal nga seeti ko ne ma dem mu jox ma ñetti junne ne boobu te boobu junne dañuy déglu ku ko am ndar ak junne ca Dakar diw am na ko comme milliard rek ne ma ñëw jox Maodo ne Maodo yeewi gan nga mu dem mu dem am trois mois rek beneen sëtu Cheikh ñëw ne alaaji maay ni ko ah ba tey wërsëgu alaaji Abdu Kan la demal nga wax ko ko mu dem mu joxati ko ñetti junne mu ñëw jox Seydil Hadji Malick nee ñu toogati ba am nangami weer beneen sëtu cheikh bi jamee neen Seydi Haj Maalik ni ko ah Babacar bët de gurusul toj alaaji Abdou Kan daal duma ko wax dara ne ñu dajale dajale dajale juróom-ñaari téeméer rek lu ci topp nañu am ne mun ko ah, pexe amul wërsëgama dëgg rek demal nga seeti ko ne mu seen ma may ñëw mu muuñ ni xanaa dañoo amati gan ne ma ni ko waaw waaw mu ne ma nag daldi ni ah góor gi de yàlla bu mu gis li muy def boole ñàkk alalam ak ñàkk tuyabaam ne loolu la wax ci sama xol ne bi ma ñëwee mun ma toogal dugg ci biir génne ñetti junne jox ma ni ma soo demee nga wax sa baay ni ko fii ba déwén surtout cheikh bu ñëw su yónnee see danaa ko jox ñetti junne waaye ci barkeem nag ah. nee na daal di jàng nag bayti ba yara ladina ale min al xayraati dunyan wa uxra naxwahu qad yaati Seydi Hajji maa ngi ne taalibe lu mu am adduna ak àllaaxira ci barke sëriñam la ko am ne ma doon noyyi nag ne ah góor gi yëpp na nag waaw loolu moo tax bañ ko ne ba mu wax loolu alaaji Malick alaaji Malick dégg ni ñu ngay defar kër alaaji Abdoulaye Niass ndax alaaji Abdoulaye Niass tubaab yi dañ ko lëjaloon ndax booba ñoom sëriñ si yëpp tubaab yi dañoo ma ay agent de renseignement yónnee leen ci kër sëriñ ci te xamuñu leen ñi di leen boole rek moog sëriñ Touba Alaaji Malik ca la bokkoon waaye moom dafa teel yëg mbir ma rek toxu ñu tubaab yi boo leen soree ñu mën la booleeg ñoom maa ngi dellu ndar fekk ndar la jóge woon dem dem dem njaarnde am na fa sept ans waaye mu toxu dellu ndar ñëwit ndar fekk tubaab yi instauré fa benn civilisation boo xam ne àndatul ak daara muy xalaat nag fan la war a dem fan fekk woote bu mujj bi tubaab yi téye nañ ko fa ba minuit ñu door koo woo ñu ko waaw ñu ngi lay bàyyi nga dem parce que ñun dafa am fukki jaambur ak ñaar ñoo xam ni daañu diisoo ak ñoom ci sëriñ si nekk ci Sénégal ñoom ñépp nag yiw lañ la seedeel léegi nag man nga dem daldi ko joxit benn papier ñu ko papier bi it may na la foo bëggee a rek pour jàngale ak bay ak yar nga installé ba yàgg sa mënu ko ban cercle nga bëgg Maodo ni ko waaw bàyyi jox ma këyit gi rek te bàyyi ma ma dem ndax yéen su ma la leen wax su ma leen waxee fi ma bëgg man ngeen maa jox suufas jaabu lu ma ca bay muy ribaa kon bàyyi leen ma ma dem rek seetu borom suuf yi luñ ma may mu lew ma ñu des nag fekk dañoo joxe woon turu Serigne Touba turu maam Alaaji Abdoulaye Niass turu Alxaaji Malik turu Bira Xaali Guèye turu Sakoki Gajaga turu Serigne Lambaj mat nañu fukki mag ñu jox ko tubaab bi ni ko ñii daal fekk sàkkoo ci ñoom pexe li nga bëgg ci réew mi doo ko am tubaab bi nag commencé def leen wujjam di leen fiire di leen woo Maodo nekk ca njaarnde te bés bu nañ jot jox la convocation ni la wuy jël gouverneur Sénégal mu dem buñ demee ñëwatee ñu woowate ko mu dem ma Mor Masamba Diéry mooy tuiteuram moom la nekkaloon Ndar fa lay dal mu ne naa dellu si Ndar ndax mu mucc ci tubaab bi ba mu gisee alaaji Abdoulaye Niass nag mu ni ko génnal kaw gi te ñëw ci teeru bi loolu ko indi Kawlax ba ñuy defar kër ga nag doon ni alaaji Abdou Kan banti màngi yi nga ma waxoon ak deux mille cinq yi jox ko alaaji Abdoulaye Niass mu boole ko ci la muy defaree kër gi waaw parce que ñoom benn la ñu woon fexe woon nañ ba nekk benn ñun koy noo ñàkk fayda ba nit ñi teqale ñu rek waaye ñoom amoon nañu fayda ba nekk benn loolu moo doxoon seen diggante alaaji Abdou ak alxaaji Abdoulahi Niass ci ndigalu Seydi Alxaaji Malick loolu topp nañ ko ba Baye Niass caatam mu jigéen taawu alaaji Abdou Kan la ko tuddee ngir dundal wëllëre woowu Seydi Ibrahima Niass caatam mi mu mujj am mi ngi ko tuddee soxna Jeyna ba kanam soxna Jéyna Ba Kan mooy taawu Alaaji Abdu Kan soxna Astu Kan topp ca waaw loolu bu ñu masaan dem Kawlax nag dañuy dem kër Baay dañ fay yendu bu ñu ñëwee mu ni yéen cheikh laa leen di booleel mooy seen cër wax na ko Serigne Cheikh ba tey ni ko yow ca Cheikh Tidiane laa lay yabal nga dal ak moom mooy sa cër foofu yàlla dogal ñu bokkati jamono ku nekk nekk xalif général de Tidiane ah. bi ñu gisee Maroc nag ñu waxtaan ma ñu ko daal ñun daal dañu xaw a ñàkk fayda rek bokk tariqa Cheikh Ahmed Tidiane yi te mën ñuy bokk action yu jëm ci tariqa bi lu dul ku nekk di ñooroo moroomam ak di ragal ma ko loolu kenn xamul lan nag ñu waxtaan fa nag waxtaan bu am solo bi ma ñibbisee itam mu topp ko nag ma topp mu yónnee ma délégation bu day na ñey fukki ñaseen ak ñett ñaar rek a ci santul ñes te seen yaay ñes la sant ñu ñëw yendoog man ci ndigalam lu ne mu yónnee ma ko ay mbubbi buuri kanu yeeg yoo xam ne bu ma ko solee rek damay niroo kanu kanu <laughs> eh, loolu mu nekk mu nekk ku ku nooy nag cheikh ku laabiir ku nooy ku woyof loolu la ko yàlla may ci doomu bàyyi yëpp wax dëgg yàlla moo ci ëppale loolu ñëpp am nañ ko waaye moo ci raw alaaji abdoulaye moo ci magoon dañu ànd di tukki mag moom ñuy dem Bagdad ñu dow ba Maroc gouvernement du Sénégal jox ambassadeur ba nanu teeru si te jox nu ñaari oto benn Mercedes ak beneen oto ñaari oto rek la ko wax waaye ambassadeur bi indi ñaari oto alhaji Abdoulaye nag dafa def ni woon moo ma mag ñu ñëw ci génn ci aéroport bi fekk ñaari oto yi taxaw mu joxañ bu ndaw bi ni ma demal ci oto bi ma dem ci bii ma ne ko waaye yow may sama mun ma yow yaa ma ma wax ko sama date ak date de naissance ah, ah ah yaa ma mag yaa léegi nag ñu dugg ci oto yi dem ndeysaan eh, fanaan ci hôtel bi fajar ñu jóge fa demaat aéroport wuti Bagdad nag ñu takk fa nag wëllëre ba yàlla dogal eh, cheikhul islam nelaw cheikhul islam bi mu laate nelaw dama dem gàmmu kawlax dama daan dem suba kawlax ne fatiha rek man tegu naa ci yoon bi dellu si tiwaawoon bés nag ma ñëw alaaji Usmaan ni ma ah doo mën a dem dal di dem kat ndax sa bay alxaaji ibrahima ñas radiallahu anhu dafa yónnee si ni boo ñëwee na fa jaar si daf la soxla Ah, kon damay fanaan bi bisir ma fanaan bisir ma xëy dem seeti ko ndeysaan boobu mi ngi ci feebar bi bi ma ñëwee mu ni ma lii ma lay wax su ma gisoon Serigne Cheikh moom laa koy wax waaye comme jotuma ci moom ma wax na ko rek yaay moom waaw daal di ma dénk yu bari nag wax ma itam yu bari ci ñëw contre tariqa Cheikh Ahmed Tidiane contre l'islam bi ni kon bu ngeen yóbboo fogoru ko loolu la ñuy bu ngeen yóbboo fogoru ko ma mu ne ma man mii tey jii ci ngoon la fi jóge dem Londres seeti docteur yi ndeysaan ñu tàggoo mu ñaanal ma mu dem mu dem dellu si moo xam ni kon def doon tàggoo bu mu gisee Serigne Cheikh ma wax ko euh, li ma waxoon yëpp ma góor gi daf ñu doon tàrgu pour wax leen léegi ñaari kii nekkoon na benn xanaa ñun koy ñooy ñàkk fayda rek loolu Alaaji Abdoulaye nag bi mu toogee su ma téléphoné ma ni ko léegi yaay sama mag ndax nekk nga xalifa te ma nekk guma ko <laughs> mu réew a ma ni ko nangu naa léegi ni yaay sama mag ba ba may nekk bopp Euh, loolu la ñu seq lii itam bi mu jotee man maa ko yónnee ndaw une délégation forte délégation woo Alaaji Fall Alaaji Malick Fall ñu ko seetal ci waa coordination bi ñoo mën a àndal ak ñi may désigné fii ngeen dem seeti cheikhul islam Cheikh Ahmed Tidiane Niass ngeen wax ko ni ko cëru barxam daal chaise ba ma nga fa kenn du ci toog ku dul ku mu désigné rek tànn mu mu tànn mbokkam di jarbaatam sëriñ bokkal barxaam ndeysaan sama bàyyi nett sama nijaay nettali na ma ko sama ndey nettali na ma ko nee na ba ñu jamee suma maam ab duba ca jihaad ja ca ñooro jihaad ja somba ca siin mu ànd ak magam Maba Jaxu ñu dem ba ñu jubee siin Maba Jaxu ni ko Abdu euh, danañ ma jam jam la man nag danaa ci des waaye sañu maa wàññi ko yow nag yàlla dana dogal nga mucc ci sa jam jam euh, suma soxna bi ñuy wax Selbé Niani Bersin Bakaj ca laas jur ko su téngee ba summi bu ko bàyyi mu dellu ca ceddo ya na ko jël ñu dem ñu jam leen ñoom ñaar ñu daanu maami Barham Diop ca guddi mu ñëw di watat ñi ñu jam ci jihaad ji di leen sànge ñax ba yegsi ci Abdou duba laal ko rek mu yëngutu mu watak ko ba ci benn taatu garab maam ab Ba ni ko dama mar trop mu daw nag wër foofu wër foofu ba gis benn siyaan benn xàbba nga fa mu tànq ca siyaan nga ndox indi jox ko maam Abdou duba mu naan ko loolu moo ko soree ma daan tooñ bala xam ni ko yaa tax ma am loolu laa ko daan tooñee ni ko yaa yaa tax ma am suma maam boobu ñu delloo si ko ñooro ba soxna Maba Jaxu yi summee mu jël selbe am ci ñaari doom bu góor ak bu jigéen bu jigéen bi moo jur sama ndey moo tax waxkat yi naan ñu Abdoulaye walimatu xumma borom ndee ndekki li ci jaxaw ku xam sam bopp laa na ñu nuyu Euh, Seydi Ali bi Niass ak suñu mbokk mbax mi doon traduire waxu euh, maali docteur Bakdouri ñoom ñëpp ñu ngi dimbale Serigne Cheikh di ñu dimbale waale ci ànd gi ñu war a ànd almarakis at tijaniya fi Sénégal ndax bu ñu bokkul ànd rek liggéey bi du rafet ñu nuyu leen bu baax a baax nuyu itam le député Alé mu ngi ci assemblée bi mooy deñ ci suma taw bu jigéen ñu ngi nuyu Moustapha Touré Moustapha Touré yaayam ak suma yaay bokk ndey ak baay ba noppi Fat Cissé Touré bi jiite jigéen ñi ci coordination bi mooy soxna moo tax démb ak tey muy sañse di ñëw rek ñu sant fédération daayira yi ñoom ñëpp teew nañu jàppale waa coordination bi ñu sant jigéeni Dakar su jataay bi amee taar ba mel ni jigéeni Dakar a tax te noonu lañu mas ci diine ak ci leneen lu mu mën a doon bu ca seen taxawaay génnee rek loola du sax xorom ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen sutura àdduna ak bu àllaaxira ku ciy liggéey yal na barkeel ku ci amul sëriñ yal na am sëriñ ba ko gënal ku ci feebar yal na wér ku ci am aajo aajo ba yal na ko yàlla faj ñu ngi sant jigéen ñëpp wax dëgg yàlla di sant seen présidente soxna Fatou Cissé mi nga xam ni moo leen jiite ci biir coordination bi di suñu soxna waaye di soxna bu nu gërëm nag bu nu gërëm moom Fatou Cissé famille Moustapha Sy euh, euh, Touré ñoo ko gërëm ci sama laaj mi nag ñu nuyu Koskas seen présidence rafet na ñu gën a nit waaye ñu gën a nit daayiratul bi asaaril abai wal ajdad di nuyu les jeunes malikites di benn moment bu am solo bu jeune adressé seen bopp Seydil Hadji Malick euh, suñuy njaboot ak ñëpp nga ca ñu tuddee les jeunes malikite ñu ngi leen di sant ñoom tam ci seen teewaay ak teewaay bi ñu defaat tey ci ngoon euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci làmmiñu ki nu yabal mu di ci Ahmed Tidiane si te bu ñaanee yàlla nangu ko yàlla ko ko may te man xam naa ci dara ñu ñaanal képp ku ñëw bokk ci ak foo mën a bokk ak foo askanu jëm la Cheikh El Hadj Mali wax ca baytam ba xaw ma yow du kenn na ko baytu ba wax de malaa'ikullaahi tariqatu zikri bi bi muy laata samp fii ci Sénégal xare la woon ndax cheikh tariqam dafa civilisé comme nii ko euh, waaw ay doomu ndar la ñu jékki xam nga doomu ndax jëme ba eh kooku ajoor la waay bàyyi ko mu dem eh, eh, doomu ndar bu jigéen ba dafa am benn trayeur ba ko doon bëgg nag te xamul ni trayeur mu dem ba ci biir daal d'accorduñu ndaw si dàq ko nag bés nag muy dox ci kaw pom bi ba dajeeg moom waa ji mi ngi sol yére soldat yi te xam nga bu jëkk euh, tubaab yi ci seen doye bi euh, ku juddoo Ndar wala Rufisque wala Dakar wala Gorée yow yaay citoyen mm-hmm. waaye ku juddoo ci dëkk yi ci des yaay tirailleur tirailleur nag daawul sol dàll waa ji nag bi nga dox ci kaw pom bi ak tànke neenam dajeeg ndaw si mu doon bëgg ndaw si xam ne que ni ki ii yow ndekki bi nga ma bëgg ci rayeer nga waa ji ni ko waaw tirailleur laa woon kay mu ne ko waaw yow soo ma takkoon noo maa def ay nga ah mu ne kon daf la yóbbu ca kaw ba rek waaye Seydi Hadj Malick am ñoo xam ni lu ne daj nañ kook moom ci géewu wasifa di weddi naan bidaala moom tam nag buy lux mbóot ci téere xadis yonent bi fu mu gis xadis bu mu leen mën a yen rek mu yen leen ko bu ñëpp ni nuut ndax moom tontam day am seede dafa naan xadiis bi lii la wax wala alquran lii la wax waaw xadiis boobu nag la firi ci wayam bi waaw mu leen bu ngeen demee ca saxiix al buxaari yi te moom la ñuy gàgganti ko nag nu moo dajalee waaw waaw naa leen tudd incha allah bu ngeen demee Sahih Bukhari da ngeen ca fekk fi ñuy jëlee xalqatu zikri ba sañ koo def mu ni am na malaaka yàlla yoo xam ni dañuy wër fi ñu tudde yàlla rek ñu ñëw wër leen di leen ñaanal ba ba ñuy noppi su ko defee seen borom laaj leen ñu ne ah say jaam yi ñoo daje woon di la tudd di la kañ mu ni lu ñu bëgg malaka yi ni ko ah xanaa nangam nangam nangam mu ni jox leen de ba ñu doy ñu ne ah am na ñaar ñoo xam ne de bokkuñu ca woon ñoom ñu nga woon ca ruq rek di seetaan mu ni bëri leen ci ñëpp na ñëpp am rek muy ni Cheikh Tidiane doon nettali nee dafa dajeeg benn waay mu ni ko euh, bu ñuy dem aljana mu ni ko euh, ne benn xaritu baay faalam la bu mu daan sarax nee na mu di ko wax ni ko man du ma julli damay sëriñ may na ma bañ julli Cheikh Cheikh nag may waxtaan ak moom ma ko waaye yàlla ne ne ku ko julli wun munu waaye bàyyi yooyu yooyu sëñ bi man astafurlah benn chrétien la dajeel mu di ko wax ko bu ëllëgee aljana bu ñu dee dugg bay fàll yi ñooy jëkk dem yàlla dàq leen ni tilim foofu mu ni ko xaadir yi ñëw yàlla malaaka mi ni leen yéen yéene nit ñi ak tëgg ndënd tabale <laughs> nee ko tijaan yi ñëw malaaka mi xool leen jéppi leen ni ki yéen poxo poxo ngeen mu ni ko eh, ñun ñun waa kër ci yàlla Isa nag ñu door a ñëw malaaka ni yéene ñan ko ñun ñooy waa kër yoon ci yàlla Isa mu ne ah taxaw leen ma wax ko yàlla daal di ñëw ni yàlla ah waa kër ga yow ci yàlla Isaa kat yegg si nañu yàlla ni ko sii dugal leen ci salon de l'or mu ni mu dugal leen daal di tëj nee doomu ndax yi nag dóori ñëw daal di fëgg malakam ni ñooñ ñan la ñu ne ko ñu noobaa ndaal mu ni waaye yéen fu ngeen nekkoon ba ma tëj dox du ngeen fi dugg tëj naa ba nag ñu ne ko waaye bul def loolu dimbali ñu mun du ngeen fi dugg fu ngeen nekkoon ñu ne ko mais dañu demoon sangu ji solu ji kuy dem àjjana da nga nee na ne chrétien bi ni ko yàlla nag sëpp ci kaw ni ñoo ñan la ñii wax ñan la ne doom ndax ni ko yàlla ñun la waay ñun waa ndar dañu demoon doon sangu jeeg di solo rek ñëw mu ni moom tëj na du tijji mu ni ah waa bàyyi leen ñu dugg ñu ko waaw noonu la yàlla dox leen mbir mi ah chrétien bi wax ko noonu <laughs> bu ñu ko daan nettali dañuy réew bu tudd si pour wan leen rek ay Sénégal lépp kan lañ ko def moo tax jàmm di fi am ñu nuyu itam coordination des jeunes Tidjane bu Wakaam xam nañ ne ñu jàmbaar lañu ñu borom taxawaay lañu su ko defee nag ñooñu ñëpp ñu ñaanal ñaanal képp ku ci bokk ku ci bokkul sax koo xam ne doomu aadama ngi ci kaw suuf ñu ngi lay ñaanal rawatina jullit yi rawatina ñu dul ñu bokk ci turuqu suuf yi ñëpp lañuy boole ñaan euh, ngeen xam ni rek nii leen ko ministre bi waxe démb Mouhamed Tawfiq ci kalimaam ti ñi ñu war a nekk benn d'abord nun tijaan yi ni ñu war a jële suñu njaboot yar leen ci yaru tariqa bi xamal leen tariqa bi xamal leen seen ndono kenn ku nekk mursal nga ci sa njaboot kenn ku ne mursal nga ci sa njaboot pour xamal leen tariqa bi xiir leen ci ñu ngi ciy dugg it bu baax xale yaa ngi ciy dugg bu baax xàmme rek moo des xàmme rek moo des ñu sant ñépp ku fi teew ku fi teewul ku man ak ku manul ñaanal leen jàmm ñaanal waa réew mi jàmm ñaanal président bi ak njaboot gi mu boot jàmm ñaanal kilifa diine yi jàmm ngeen continuer géewu wasifa yi di ko def ci jàkk yi di ko fréquenter lu ngeen man ndax ci charte tariqa bi la bokk teew ci géewu wasifa ah tijaan buy def géewu bu doot nga nga nga man nga manqué ko bu yàggee kat ah xëy na dana baax waaye daal wóorul waaw <laughs> ah su ko defee nag kon loolu ñu xamal ko xale yi wan leen ni ñoom ñoo moom yëf yi léegi lànga bi ñoom lañ koy jox ñoom ñu jiite mag ñi di leen ñaanal ak di leen digal rekk lañu dese lool la ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax ñu ngi nuyu kilifa diine yépp ci Sénégal di leen sant ba ca suñu kilifa yi ca Touba tey di organiser seen màggalu kilifa bu baax ga yal yàlla defal leen ci lañu bëgg ñu ñaanal ñëpp jàmm ñaanal leen te jàmm euh, wax leen rek ñu gën a bàyyi bés bi ak coordination bi xel euh, ñu ngi leen di digal yéen ñëpp bu jotee rek ñaari fan yiñ fi passé mos leeru tariqa bi démb ba tey naisu nafaxatun ruuxiya yu tariqa Cheikh Sidi Ahmed Tijani euh, su ko defee nag kon yal na yàlla sàmm nu sàmm leen sàmm njaboot gi euh, musal leen ci ndox yëpp musal ci suñu réew ak réew yi ñuy wër yëpp muy Mali di Mauritanie waaw journée Cheikh Ahmed Tidiane yi Ndar yi moom le 8 mars la set ak huit ñu ngi koy wax euh, gannaaw loolu itam xam nga am na benn forom bu jeunesse su Zawiya Tijani yi bu Tiwaawan en collaboration ak COSCAS avec COSCAS euh, benn symposium bu ñuy def euh, ci benn bés rek lay doon waaye danañ fa traité ay sujets yu am solo ci wàllu lislaam wàllu yonent bi boobu itam ñu ngi koy yëgle le samedi euh, vingt vingt décembre lañ koy def ca Tiwaawan euh, ñu ngi koy yëgle di ko yëgal mbokku taalibe yëpp ku am temps wu teew fa yëpp nga ñëw teew fa. koy defee. ah bon ñu ngi koy defee méridien man ko dama kaw kawee ba mu ëpp kon ñoom ñu ngi koy defee méridien yenn yàlla mottali ko sàmm nu sàmm leen yenn yàlla fay leen seen jataay bi yàlla bu mu niin yàlla lépp di tuyaaba yàlla lépp di barke yàlla lépp di leer yal lépp diiw te ñu jëriñoo ko fi diini wa dunia wal axira jazakumullahu xayran kenn ku nekk ñu jàng comme niñ ko naan defee salaatul fatiha euh, bi ñetti yoon bi sawtu rafia yëkkati jalsa bi dem noppalu bi sant itam waa sécurité bi ak waa télévision yëpp bu Sénégal bu national bu TFM bu yëpp daal ñoom ñëpp ñëw nañu jël ci événement yi yal na yàlla barkeel seen télévision yi te defal leen ci la ñu bëgg bi nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam wa bi barakati cheikhina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 sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين